son nuyu naa la. Ah, naa la. jaajëf waay. ginnaaw bu mu sant naan. plus. maa ngi bëggee ñëpp. ñu fi teew yëpp vraiment jag si mais amul fay am. maa ngi bëggee njëriñam bu mu jógee. ak ñi ak ñi ma àndal ñi seex. su géej gi xam nga Sanjara Fisel Diouf Yor ñoo Joor. pour Kaar. maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay xayta ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla di julli ci yonante bi. di san suñu ñaari waajur quoi di nuyu assistant bi fi toog yëpp wax dëgg yàlla di nuyu waa CNG yëpp di nuyu xam nga ñoom commandant di nuyu bu baax a baax ñaari grand combat yi Liss Ndiago ak xam nga di nuyu di nuyu sama jigéen. sama xarit Ami Collé wax dëgg yàlla ku sonn ci combat bi la. soo gisee ma jël combat bi sax moom ci la bokk ndeysaan chaque jour mu woo ma xam nga rek. di nuyu idi bu baax xam nga di nuyu sama doomu nday ala ma àndal nga xam ne mooy sama lépp mm-hmm. billaay wala taala xam ne moom lu mu ma digal rek ma def ko mm-hmm. xam nga la ma dama jël combat bi bëgg a bëre war a bëre a bëre waaw ak war a bëre daan dem ñibbi mm-hmm. waaw nga nangu kii du ku may daan du ku lay kii maa man bu nekkoon ñaar sax ah bu nekkoon ñaar bu nekkoon ñaar ñu toll ñu moom man kese maa leen man billaay wallaay kii dafa bëri wax te def fi dara kii dafa bëri wax ay man maay ngañ seen ay maay borom dëkk bi yow doo dara kon borom dëkk bi yow lamb simple ñi fiy wax titulaire yi kenn du la tudd mais borom dëkk bi ngay bëreel kon kii du moomul dëkk bi. kii du tous yow da yaakaar ne man déglu ma wax la rek yow da yaakaar ne man benn maye nees laa booy ñoo xam damay dangay ñëw nga diw ma sa mburu dem barki yonent bi nax nga sa bopp. waaw jox naa la wax ji. waaw man bu ma jox wax. yow yaa wax ma féete jëf bi man doo ma nit ñi. jox naa la wax bi man doo ma lu yomb te loolu mooy sulga rek yow li wax lu yomb nii ci yow lay yomb ndax yow la ñuy daan ba pare nga tëdd ci biir géew bi jàpp sa gémmiñ. non yow foofu di wax rek yow dañ laa jël pour rien de tout nii rek. non toogal foofu du combat ma defut. ku ne nag ñoo war a may jàmm ak lamb simple man defu mu dara ci lamb. waaye lii du combat damaa xam ne lii du combat du kii dama koy daan mbirum suñu borom la arbitre bi bu génnee rek dama koy daan lii xew suba mbirum waa baax na ñëpp a ngi nii toog di bu génnee daal pour arrière yàlla rek ati wol sa gaay maa ngi woo ñëpp maa woo waa Njagañaaw may ko mu Njagañaaw Tening waa Sanjara waa kii waa Fiisel mhm. waa Diofior waa Kaarang bàyyi ma kenn ko waa maa woo ñëpp ñu ñëw jàppale ma nga xam ne seen doom bi am na combat foxos joxos lay doon. luy loolu. waaye tax mun ko wax foxos joxos. billaay walaay. loo bëgg a xof foofu. loo ko. foxos yoxos. ah foxos. aja kon foxos joxos xeetu aca baax billaay di nuyu xam nga di nuyu sama Kër Masaar ma jëwee di nuyu xam nga. di nuyu sama grand Morou Koundoul baax di nuyu waa Kër Masaar yëpp. xam nga di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax di nuyu sama papa di nuyu suñu waa kër yëpp. Mhm. xam nga di nuyu sama doomu nday alaami ma àndal di nuyu waa Baxdaat xam nga di wax képp koo xamante di nuyu Papis Gueye xam nga ay ñoom xama sama gars ñoom bàyyi américain yi bàyyi ak gars yi yëpp leen di nuyu ñëpp di wax ñëpp gars yi rendez-vous bi la 22 kii dafa bëri wax yaakaar ne moom mooy roi des arènes te def fi tous xayta ak Johnson